voilà monsieur Mbengue mot de la fin bi lan lay doon euh, gannaaw bi la jaajëfalee gërëm la sant la bu baax a baax a baax donc lan ngay wax euh, les populations parce que tey jii euh, amaana ñu am ku la dégg ndax tam dañ koy soxla population bi dal waaye tamit yar gi dellu ci surtout aspect éducatif bi également am na solo trop monsieur Mbengue waaw le mot de la fin c'est c'est vraiment d'abord ñaan yàlla yàlla jàppale euh, jàppale Sénégal jàppale Sénégal euh, parce que si jàppale bi nga xamante ni yàlla dina ko yërëm dëkk bi yërëm ko nit ñi si la lu bari loo xam ne ay yéene la daal di mën a nit ñi nag euh, il faut que ñu xoolaat tamit ñun ñëpp suñu ay comportement parce que am na lu ñu yaree am na loo xam ne mooy suñu ay valeur si dëkk bi àdduna dafay dox bien sûr mais euh, ñu interroger waat suñu suñu suñu suñu bien collectif xool naka la ñuy àndee naka la ñuy jëflantee naka la ñuy euh, sàmmee li nga xamante ni moom mooy moom mooy moom mooy li ñu bokk. Mm. parce que loolu la ñu war a après léegi finalement euh, suñuy doom suñuy sët te amuñu droit yàq ko léegi leen loo xam ne ëllëg si biir bés bu ñu ñëwee ñoom dañuy réer du ñu xam fu ñu teg seen tànk parce que dañuy du ñu am benn valeur du ñu am benn benn perspective. suñuy waajur defuñu noonu kon ñun amuñu responsabilité wu teg leen si yoon woo xam ne du yoon bu baax donc sa c'est vraiment euh, une introspection collective boo xam ne ñun ñëpp war nañ ko def leneen li itam mooy ñu ñu comprendre que àdduna déjà lépp xëyul sotti et que dañu génn ci contexte bu jafe mm-hmm. euh, alhamdulilah sax je parle de génn ci contexte bu jafe parce que c'est vrai que Covid bi on parle éventuellement de quatrième vague mais yàlla na ci yàlla musal mm-hmm. mm-hmm. euh, teguwaat ci trajectoire boo xam ne mooy trajectoire de croissance et puis euh, opportunité yu bëri yoo xam ne xawoon na xawoon na naxsaay euh, mu dellu si waat comme ça nit ñi mën a jóg gis nañu difficulté en matière d' emploi état bi di si def dara mais déjà ingénieurie sénégalaise yi da nga koy gis on a mm. beaucoup de métiers yoo xam ne si Covid bi dafa développé wu absolument euh, ay initiatives personnelles vraiment yu développé wu même su secteur u nouvelle technologie on a vu comment le commerce Euh, électronique ak peut-être euh, yenn yu bëri yoo xam ne c'est passé par les réseaux sociaux et cetera ma développé na yenn secteur mm. d'activité yi donc ingénieurs sénégalais aussi il faut que ñu ñu ñu ñu ñu xool nuñ ko mën a promouvoir à travers les politiques publiques et ça c'est de de la responsabilité de l'État veiller aussi à la sécurité des personnes des biens ça aussi c'est de la sécurité des de l'État du Sénégal ñu ñu ñu ñu gën ci taxaw euh, li ci des c'est c'est vraiment encore une fois appuyer les yi nga xam ne état bi mu ngi koy def Euh, ñaan yàlla mu gaaw sotti euh, bu sottee njëriñ li tamit ñu ñaan ko fekkee et mu nekk loo xamante ni dina dina dina avancer loo réew mi parce que luy avancer loo réew mi rek moo am solo euh, tey jii émigré dem bitim réew di fa liggéey jël sa doole sa xam-xam sa lépp def ko fa donte yaa ngi am sax looy capté en terme de ressources di ko indiwaat Sénégal baax na mais defoon ko sa dëkk amal sa bopp sa dëkk njëriñ moo gën Donc c'est un finalement à, à, à, toutes les parties, les populations, euh, l'État central, euh, et puis nit ki de quelque part booru foo mën di nekk ndax yaa ngi si nguur gi wala ndax yaa ngi si opposition bi peu importe ñu xam ne li ñu bokk sàmm ko moo ëpp solo. voilà gis nañu également tamit euh, VDN euh, prolongé bi euh, gis nga VDN bi ñaari pont yu fa nekk am na pont bi nga xam également mi ngi Brèche d'Orée bu Yoff bi bi pareil également gis nañu ni mu jàppale li nga xam ne tey ji moom mooy circulation bi tey ñu ngi wax tamit VDN bi nga xam dafa war dellu dem ba Saint-Louis nga xam ni littoral bi lay jël gis nañu mu commencé jël forme récemment wax na également tamit diggante fi nga xam mooy Tivaouane Peulh ak euh, tey Lac Rose dinañ ko entamé euh, lan nga mën a wax également si VNM bi nga xam ni jàpp nañu ni ñiy dem banlieue yëpp léegi jaaratuñu ay Pikine daanaka foofu la ñuy jël. loolu dama si sawar parce que sama sama sama secteur sama domaine d'intervention la si sama wàllu liggéey la VDN bi c'est un projet boo xam ne euh, yàlla def na tronçon. intermédiaire bi entre Cambérène rek moo desoon pour faciliter jonction bi te loolu ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy finaliser euh, jóge fii mën a dem ba Lac Rose mhm. euh, si diir bu gàtt dootoo jaar si péage bi dootoo jaar si national bi euh, loolu lépp ay ubbeeku la yoo xam ne day tax ba territoire bi gën a fonctionnel nit ñi mën a dem dellu si si lu gaaw Lac Rose nag c'est vraiment si projet bi ni ñu ko tëggee xam naa si dara parce que dama si liggéey l'ambition mooy fexe ba mu nekk la nouvelle destination touristique bi Grand Dakar. parce que dafa am potentiel bu am solo. absolument euh, ñi nekk ci secteur touristique bi xam nañ ko mais pour valoriser ko dëgg dëgg dëgg li mu laaj mooy état dugal ci loxom à cent pour cent ay ay ay ay acteurs aussi privés yoo xam ne seen métier la. Euh, sénégalais comme internationaux dugal ci seen loxo à cent pour cent pour que potentiel wu Lac Rose euh, ñu mën ko valoriser def ay infrastructures touristiques yu mag ni Petite amee woon importance dëgg-dëgg si développement économie touristique Sénégal. Mhm. Lac Rose aussi daal si jël suuflam et en fait loolu départ lay doon rek parce que diggante Lac Rose ba saint bi am na ay Lompoul am na ay sites yoo xamante ni vraiment c' est des sites mhm. Sénégal wala valoriser lii bokk nag si li koy valoriser première étape bi effectivement mooy VDN bi ak euh, viaduc yi nga xamante def nañ ko ba yombal euh, traversée bi. Mhm. léegi da ngay ñëw romb daal di continuer euh, mën a dem sax ba Cambérène bu pont bi pare. continuer encore ba Guédiawaye. gàddaay euh, et cetera ba yegg ba ba Tivaouane Peulh mais léegi phase bi nga xam ne moo si war a topp tudd nga ko sànq c'est euh, la côtière mm-hmm. mooy littoral bi nga xamante ni war na am euh, tali bu mag muy VDN bi peut-être sax mën na nekk en une autoroute mm-hmm. bu yegg ba Saint-Louis xam nga kon loolu déjà tronçon bi su ma juumul sax on avait estimé que ne c'était cent soixante quinze kilomètres mm-hmm. yoo xam ne moom moo war a yegg ba Saint-Louis loolu dafay yombal diggante ndakaar ak Saint-Louis dem dikk bi valoriser euh, potentiel territoire bi fexe tamit ba économie bi lépp loo xamante ni euh, war na fa mën a soxeeku développé mu développé fa ñu ngi gis AIBD euh, aéroport plateforme Diass bi mu ngi développé wu ak projet ville aéroportuaire bi nga xam ne Euh, actuellement euh, le directeur général Doudou Ka mu ngi koy porté war si def ay réalisation am na ay hôtel yu foor a ñëw am na ay infrastructure euh, yu accompagner développement plateforme aéroportuaire yoo xam ne war nañ ko fi def donc sincèrement développement yooyu am na lu muy indi comme impact gis nañu aussi le projet du port de Ndayane bi nga xam ne mu ngi jël forme bés bu fekkente ni état bi yi ñu ciy négocier xam naa pare nañ ko salaamaaleykum mbokk internet yu Eleven News ñu ngi fii actuellement si euh, daanaka Patte d'Oie gis ngeen ni la mairie de la Patte la Brioche Dorée également donc euh, maa ngi fi fekk euh, un un gars mi nga xam ni tey jii war nañ ko mën a laaj si li nga xam moom mooy gis-gisam si réalisation président Macky Sall yi présentement nii fi ñu nekk nii gis ngeen chantier BRT bi également tamit mi ngi nekk. mi ngi jóg mi ngi mi ngi mi ngi génn eh, ak yeneen ak yeneen yi nga xam tey ji président Macky Sall eh, def na ko maanaam eh, mi ngi si wane na ko te mi ngi mi ngi jël forme salaamaaleykum waa ju baax. maaleykum salaam. mën nga ma wax sa sa tur nga présenté wu. maa ngi tudd Seydina Omar Mbengue je suis sénégalais. je mhm. suis acteur aussi si développement bi nga xam ne mu ngi am si réew mi buñ ñu si wooyee pour ñu waxtaan si aussi dinañ ci kontaan trop moo tax sax ma daal di euh, gaare nii pour ñu mën a discuter. voilà euh, par contre gis nañu ni euh, fi nga nekk nii rek amoon nga difficulté tali bi xat na gis nañu fu nekk pratiquement gas nañ ko gis nañu BRT bi également si waxoon si projet bi dina am du am gis nañu mu commencé jël forme sa jàngat lan la si. non BRT bi moom c'est un c'est un excellent projet c'est un projet structurant man am na lu bëri loo xam ne si samay wàllu liggéey ak wàllu gëstu. Euh, c'est une soir boo xam ne depuis deux mille euh, deux mille deux mille deux mille sept non non non depuis 1997 bi ñuy njëkk mettre en place le CETUD euh, war a réfléchir sur programme yu bëri yoo xamante ni dinañu dinañu changer xar kanamu Sénégal si la ñu am yoo xam ne ñu ngi ko doon envisager maintenant 1997 il y a eu quand même beaucoup d'années qui sont qui se sont écoulées. par la chance, avec le président Macky Sall, a pu voir le démarrage de ce projet-là. Le projet BRT Binac, c'est un projet structurant, comme nous le parce que Dakar, Fiminé-Kenny, a 3 millions d'habitants. 3 mm-hmm. millions d'habitants, Diamono, le Sénégal, il amoon a comme population. Donc, li ñu am fi mu ne nii si système de transport bi ak njaganjaay yi ak bus yi ak taxi yi ak lando yi ak particulier yi mënatul sotti c'est-à-dire loolu mënatul servir comme modèle comme si système de transport boo xam ne ëllëg si biir la ñuy soxla si si si jumtukaay pour nit ñi mën a dem dellu si si conditions yu baax ñu mën ko def donc il faut que ñu am ay grand projet BRT bi c'est un grand projet dina am lu bëri loo xam ne bon nit ñi nag bu ñuy defar dina indi ay jafe-jafe loolu la ñuy gis naan ñu ngi nii circulation bi xat na et cetera mais BRT bu soobee yàlla bu sottee. Mhm. dinañ gis amélioration autant si euh, qualité bi. Euh, parce que nit ñi dinañ déplacer aussi conditions yu gën a baax mais aussi si si si si si si possibilités yi nga xamante ni dina ko offrir en terme d' parce que zone yi muy jaar yëpp ay zone yoo xam ne day chance seen xar kanam euh, foncier bi dafay jël de la valeur ñi am ne foofu dañ fa am ay kërax yu demee noonu dinañ gis ne euh, acteur économique dinañ gën a soxla am fa ay commerce et cetera donc loolu de plus value la bu muy indi si économie bi BRT bi bi bu si yàlla defee incha allahu rabi ñu fekk yaakaar naa ne ñi si doon indi ay wax yoo xam ne du ay contribution yu positive ñoom ñëpp dinañ ci adhéré à cent pour cent déjà fii rek euh, Grand Médine euh, gis nañ ñi mu meloon ak euh, plateforme modale multimodale bi nga xam ne moom lañ fi nar def nga xam ne boo diggante nañ ko on va xam naa initiative yi ak travaux yooyu loolu lépp ay liggéey la mais surtout développement boo xam ne dafay ñëw si territoire yoo xam ne tey Euh, amul amul amul lu bëri loo xamante ni dina dina dina ko jëriñ sénégal yi parce que amu fa emploi bu bari amu fa li et donc loolu yëpp ay emploi la euh, c' est de l' activité pooru ndaayaan bi euh, wax naa ko mais pooru sendo bi ñu ngi si travaux yi donc mhm. dina avancer bon on aussi gis naa ne état bi mu ngi war a lancer la ville de Daga-Kholpa te projet cent mille logements bi ville du Daga-Kholpa bi war na si indi lu bëri bari bëri du ñàkk nag comme que dafay am ay problème mu foncier yoo xam ne dafay intervenir ak foncier bi Sénégal ni muy doxee. Mm-hmm. Euh, population yi muy am ay jaaxle yoo xam ne dañ ko si am mais lép lépp aussi à l' état d' des réponses euh, jël aussi en compte préoccupation population yi pour que ñoom ñu mën a si adhérer projet yi daal di mën a structuré wu ñu daal di ko développé. Casamance fan yii yëpp ñu ngi wax si boucle de Kalumlaay bi nga xam ne dafa am lu lu lu bëri lu muy indi comme euh, développement parce que am nay zone yoo xam ne dinañ leen désenclavé. Euh, yàlla nañu yàlla may nawet bu barkeel. amiin ñu daal di am vraiment euh, un hivernage et des récoltes euh, parce que vraiment Covid bi on a senti que taux de croissance yi ñu amoon wàññeeku na sensiblement et que li ñu si sauvé daanaka boo ko xoolee c' est agriculture. absolument. Mm-hmm. donc secteur agricole bi ni muy soutenir économie sénégalaise dafa am solo mais amaana sax yàlla moom mooy ñëw rek ak ay. nattoom mhm. euh, bu ñu nekkoon ci ay taux de sept huit pour cent doon espérer sax am deux chiffres de croissance euh, Covid ñëw moo tax yëf yi daal daanu mais ñu ngi espérer daal comme que y a une relance économique que nit ñaa ngi vacciné wu comprendre nañu enjeu yu bëri ci affaire Covid bi euh, mën nañu espérer que la vie revienne à la normale que l'économie revienne à la normale relance bi am nit ñi amaat ay liggéey delluwaat ci seen activité ñu mën am en développement une prospérité parce que loolu rek la ñu soxla. Euh, état li muy def mooy définir ay orientation lancer ay politique dugal ci xaalis dugal ci moyen pour fexe ba nit ñi seen condition amélioré wu te boo xoolee sax président de la République Macky Sall li muy def euh, du rek ay projet infrastructurel et cetera parce que am na beaucoup beaucoup beaucoup euh, en termes d' impact social loo xam ne mu ngi koy def si dëkk bi si politique on parle de la CMU il y encore des choses à à améliorer il y a des politiques de bourse familiale mais aussi il y a d'autres politiques yoo xam ne dañu am un impact social bu important mhm. jafe-jafe yi ñu doon dund si ndox mi mhm. euh, état bi dugal na si loxom bu bëri mais même sur l'alimentation en eau euh, gis nañu le projet KMS 3 bi mu ñëwee li mu indi comme amélioration donc loolu lépp day tax ba Sénégal bés bu ñu envisager fii ba deux mille trente cinq euh, yenn jafe-jafe yi si wàllu ndox alimentation ndox Dakar fii ba Mbour et cetera diwaanu Thiès bi yëpp dootuñu ko amati. donc investissement yooyu KMS 3 moo ko permettre nit ñaa ngi koy commencé gis. donc euh, en tout cas daal il y a assez de choses euh, en termes de de de de bilan euh, en termes de perspective loo xam ne dina dina dalal xelu. ñi nga xam ne nangu nañu gis dëgg. Mm. Ah. ku nangul gis dëgg nag bon ça aussi c' la vie il y a des gens yoo xam ne c' est des éternels euh, euh contradicteurs euh, il faut aussi leur laisser cette, cette liberté parce que est en démocratie. Mm-hmm. léegi nag li si des moom euh, c' est les populations ñoom ñooy gis ñoom ñooy xool ñoom ñooy xam li nga xamante ni mooy seen njëriñ. seen oto yi taxi yeex yooyu yëpp dinañ mën a def échange. pour ku wàcc ci BRT bi jël sa benn bus dem fii jël sa taxi dem fii wala jël sa oto et cetera loolu lépp ça va améliorer vraiment xar kanamu quartier bi xar kanamu environnement bi mais xar kanamu Dakar et puis surtout dem dëkk bi. bon BRT bi rek benn aspect rek la si. parce que comme que dañuy wax affaire euh, système de transport TER bi bu soobee yàlla euh, dina ñëw te TER bi fi mu nekk nii annoncé woon nañu c'est vrai plusieurs fois ne dina lancé wax yooyu. mais am nañ yaakaar ne balaa fin d'année bi bu soobee yàlla dina commencé daw. Mhm. Euh, première phase bi Dakar ñaajo la te Diamniadio y a une ville nouvelle boo xam ne ñu ngi ko fay tabax. ce qui veut dire que ku amoon sax ay jafe-jafe jaar ci autoroute bi ndax xëy na yenn say ay bouchon euh, dem gaaru Colobane wala dem gaaru euh, port jël fa sa train mu yóbbu la Diamniadio nga daal di wàcc jël benn bus dem liggéey ci ministère yi. Mhm. tranquillement dellu ci waat en quinze vingt minutes nga dem Dakar wala dem Diamniadio loolu dafay yombal. te BRT bi asafula euh, TER bi première étape rek la parce que deuxième étape bi dafa war a yegg ba AIBD euh, bu jógee ba AIBD dafa war a dem yegg ba Mbour dem aussi ba Thiès donc dañuy gis ne projet structurant la mais c'est projet territorial aussi parce que dafay yombal dem dëkk bi diggante Dakar AIBD Mbour Thiès te ëllëg si biir sax mën nañu envisager extension bi pour mu yenn yeneen dëkk euh, ni train bi daan demee Tivaouane wala di demee ay Touba yu demee noonu Euh, suñu ambition Sénégal ñun ñëpp bëgg nañ ko mooy li am bitim réew si lu baax am fi mm-hmm. war nañu mën a envisager tamit ne euh, président Macky Sall daal en tout cas ubbi na ay bunt ubbi na ay ay ay chantier yu am importance li mu si war a def yëpp dina ko def euh, mais Sénégal day continuer di dox donc aussi ñeneen dinañ ñëw yokk loolu. Mm-hmm. donc c'est toujours bien de commencer par quelque chose et puis ambition moo rëy aussi loolu tamit nañ ko ko nangul ambition pour Sénégal ambition Euh, kon lii muy def nii bon sénégalais yi war nañ ko saluer. en tout cas am na une grande majorité bu koy saluer y a aussi une. minorité euh, boo xam ne elle est assez critique mais wedd gis bokk si daal parce que bu rek dina dina dina am loo xamante ni je pense que nit ñi dinañ am adhésion boo xam ne seen xol dina si sedd mm-hmm.